jërëjëf euh, kàddu gi du gudd ndax li ñu war a wax lépp leader yi wax nañ ko ba ba noppi waaye dafa fekk itam li ma bëgg a wax su ma ko waxee ba pare duma ci mën a tegati benn kàddu moo tax du mën a gudd bi may dugg fii ci salle bi maa ngi fi dugg ak xol bu diis ak xol bu metti bu ànd ak njàqare ndax annoncé nañ ñu ni Ousmane Sonko dafa def malaise dafa def malaise bu metti ba perdre connaissance moy nit ñu ko waxe dafa def malaise ba perdre connaissance ba jamono jii may wax ak yéen médecin yi ñoo ngi ko nek ak mom ngir di ko dimbali ngir xettali ko wolof dafay wax sax ngir dabu bakkanam yàlla tere mais foofu la ñu toll loolu nag bu ñu ko waxee ci jamono jii ñu toll ak ci conférence de presse bii ñu yëkkati ngir wax ci liñ ci wax lépp ñuy wax loolu xew ngeen xam ni lu fu fu ngeen ko natt rek ci gravité ak dangerosité weesu na fa qui ñuy wax Ousmane Sonko moy leader de l'opposition sénégalaise may bëgg si wax président Macky Sall ci touru leader yi fi tok yépp ci patriote sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak diaspora bi mais ci touru sénégalais yépp ak démocrate ni président Macky Sall Ousmane Sonko intégrité physique intégrité mentale yaramam ak leppam mu ngi ci sa seul et unique responsable te ñu ngi lay wax bëgg nga dégg ni lépp lu ko dal yàlla tere ñu ngi ñaan sénégalais yëpp ànd ak ñun ngir ñaanal Ousmane Sonko taw féex mu mën a jógaat waaye lii ñu wax ñu ni def nañ malaise lépp lu ci tukkee président Macky ñoo ngi la koy wax ni moo di tey walla ëllëg fii ci biir réew mi wala ci bitim réew danañ la topp dina nekk haute trahison très haute trahison

bu fekkente ni mën naa dellu ginnaaw na ko def léegi balaa muy wees kon nag nen ngeen maa ngi sama xol dafa fees mm-hmm. maa ngi leen di gërëm

ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax